ay ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp waaw sama lim national comme d'habitude Laye Capo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Semen Karbala sama xarit suma seex sama yaay Ndey Mari Géwél sama yaay Aminta Dramé sama yaay Maari Ginnaaw IPD suma papa góor gi Diop ah Thiam waaw Thiam bokk jëf waaw di nuyu tamit suñu maire Ablaye Diop maire Ginnaaw Raay Sud koy nuyu bu baax di nuyu sama doomu nday Galas Mbaye borom centre commercial ba borom dugg jak sañse ah maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp tamit waaw di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla na suufu njeer oyof ci kawam sama sëriñ sëriñ góor ja waaw yàlla na yàlla wéral cër yi guddal fan bi nuyu waa njaar yëpp tamit ak tund jandeer bi yëpp waaw. kon keroog dimanche bi coow li am ci diggante Siteu ak Papa Sow yaa ngi woon ci stade bi coow li koy jàngatee mbir mu fa xew noonu. waaw Siteu Papa Sow ñu ngi woon ci stade bi mais ni nga ko jàngatee mooy manque d'organisation parce que manque d'organisation sénégalais yëpp bokk ñoo ci xel yi ñoo ci bokk daje waaw Papa deful dara li mu waroon a def yëpp def na ko Siteu tamit li mu waroon a def yëpp def na ko mais CNG bi li mu waroon a def defu ko service d'ordre bi li ñu waroon a def ñoom tamit defuñu ko waaw. problème problème d'organisation la. waaw pour manque d'organisation la parce que Papa Sow li mu def man bu doon man la man loolu laay def làmb ji jeex na nii mais li mu def noonu parce que dafa yónni góor a ñu ko demal joxal ma sarax bi ipongaari góor a soog dem di ko jox ñu ne ko doo fi jaar Papa Sow dem jël ko boppam pour jaar fi am na tëggkatu sabar ak doo jaar fi tëggkatu sabar moom moo lay wax fi ngay jaar yow man may borom bis bi man ma waral bis bi maay bëre grand combat bi nga ni ma yow fii doo fi jaar yow yaa may wutal fu ma jaar ba pare xeex bi bi muy am service d'ordre bi xam nañ ni kii Papa Sow bi muy génn ci mikaayam di dem fi muy dem jàmm du fa am. waaw allure bi mu yoroon cumikaay bi yëpp daw topp ci ginnaawam gémi yëpp daw topp ci ginnaawam mais gémi yeeg ñëpp ñu ngi seetaan ba bi ñuy dóor Papa Sow kii bi sabar bi ki dóor Papa sabar bi identifié nañ ko mais déggoo ba tey jàpp nañ ko wala sanctionné nañ ko wala dara tey Papa Sow bu bëtam tuur woon fan lañ jëm tey Papa Sow buñ ko dóoroon sabar bi mu dee fan la nit ñi jëm gën a bëri mais CNG bi organiser wul prévoirul dara pour mu bëri est nga li ñu fa indi ci jëmi keroog bëri na Papa Sow fitna bi mu teg ci stade bi parce que avant moo dugg ci stade bi ñu ngi koy sànni ay xeer ni ko fii doo fi dugg mais day toll benn instant boo xam ne tamit Papa Sow xale la comme ñun day toll benn instant boo xam ne entraîné na yaramam tàng na deretu xale bi day daw mais balaa boobu noonu yëpp CNG bi moo waroon a prévenir loolu bu yàgg teel a arrêté mais dafa warul sax am coow. parce que tey. bu fekkee ni combat bi avant boobu jàpp nañ ko. dañoo war a woo fan si club bu mbëri ñun leen sa mbër bu ñëwee diw fii lay toogee sa mbër fii lay toogee tëggkat sabar yi fii la ñuy toogee ñii fii la ñuy toogee mais da nga koy gis sax ci combat yu ndaw yi. combat ndaw yi da nga ciy gis ay mbër yoo xam ni seen supporters yi ñooy bokk fenn fu ñuy toog dañuy saagante di xeex. arène national ba ci kaw dinañ fa mës yoor nit. arène nationale ba ci kaw dinañ fa mës a yoor nit parce que foofu benn sécurité amu fa si jeunes yi duñ fa nekk kenn du fa nekk te gars yi fa la ñuy nekk ñi ticket deux mille mille francs gars yi cas social yëpp fa la ñuy nekk fa la ñuy daje fitna mun na faa juddu. ñu waaw ñu ñu tourné tamit am benn surprise boo xam ne dañ ko dégg CNG bi ñu ngi wax mu ni Siteu day bëriwaat pour lan Siteu ak saw Sow di bëriwaat fan lañ ko teg loolu fan lañ ko teg. le 29 fan lañ ko teg man bu doon maay Siteu du ma bëre bu doon maay Papa Sow du ma bëre. parce que li ñu waroon a def yëpp def nañ ko remplir nañ seen contrat ba mu mat Siteu bu xamoon ni tëggkatu sabar bi bu ñëwee day yàq làmbam du ko fa indi tous sax du ko def parce que deux ans la toog deux ans xaalis biñ ko ci fayoon yëpp mu yor njaboot onkul promoteur bi moom moo koy wax chaque jour moo doon wax naan si ak Papa Sow sant naa leen gërëm naa leen làmb ji ba mu amee ba léegi mu mosuñu maa woo teguñu ma benn fitna kon tey lii bu dalee ci seen kaw moom ci wàllu boppam moom moo war a tourner soutenir leen. fayeku nga sax xaalisu sponsor stade bi fees na dell géeyul yaraaxul yow perto xanaa kon ñi daggoon seen billet jour boobu noonu dañ leen di delloowaat kii bi seen xaalis xanaa sponsor bi kon xanaa dañ koy delloowaat xaalisam ah est-ce que kon xanaa mbëri amul lenn loo xam bi Covid bi ñëwee sax jox nañ promoteur yi xaalis mais mbëri joxuñu leen benn xaalis 8000 licenciés. 8000 licenciés léegi géologiste bi ni ñu ko ajee 15 ans boobu nag est-ce que loolu d'accord nga ci. waaw yow kooku ñu waroon dañ ko waroon a def lu ëpp loolu parce que loolu lii leçon la war a doon pour ñëpp parce que Papa Sow mënoon naa dee ci biir géew bi te loolu ñu def Papa Sow bu ñu ko defoon Siteu stade bi jour boobu noonu dina gën a bëri ay moor te coow lii nii gis nga lan moo ko gën a seddal mooy nawetaan bi am tëngeej sax ñu rey fa nit mais sinon kon coow lii lu nekk dina dalaat ci kaw làmb kooku 15 ans 15 ans dafa tuuti parce que Papa Sow mënoon naa dee ci biir. Papa Sow dafa yor ay njaboot bëtam mënoon naa tuuru wala leneen mënoon na cee yàqu CNG bi nañu sécurité nañu sécuriser mais CNG bi warul nekk warul nekk nit koo xam ne nii moom ay ay ay waxu nit rek lay déglu bu bu diw waxee nga nga nga nga jël loolu pour def li nga bëgg a def wala nangam ak nangam ñun mbër yi ñun ñoo war a xamaat ni chaque jour dañ koy wax ñun amuñu yaay amuñu papa ñun ñëpp ci ñun la ñuy jëriñoo te mbër munul jëriñoo ci boppam làmb ki ciy gën a perte mbër la. ki ciy gën a perte mbër la ménager bi ci wàllu boppam gis nañ Père Max ni mu taxawee nit ménager boo dee ménager nit noon ngay taxawee man Père Max nit ku ma naw looloo quoi parce que vraiment moom ay ay ay kàddoom dafa méngoog ay jëfam waaw kàddoom dafa méngoog ay jëfam Siteu nag ak Papa Sow yëpp ñu ngi leen di wax ni association des jeune lutteurs ñu ngi seen ginnaaw ñun suñ président mobile nekku fii ba tax na am na yenn décision yu bëri mënuñoo génn brusquement génn. mais tey jii dinañ toogaat ñun parce que ñu ngi waajal conférence de presse ak leneen ak leneen mais ñu ngi seen ginnaaw te man de ma leen doon jox conseil nañ leen joxaat beneen avance pour ñu bëre laa leen di wax. beneen avance waaw. si Siteu ci loolu ci dogalu CNG yooyu Siteu génn dem def ci benn benn communiqué wax jooju wax ci li mu fa wax noo ko jàngatee. mais li mu wax loolu la war a wax te li mu wax loolu la war a def Siteu li mu wax loolu la war a def Siteu dafa ñëw arène nationale bi duy ko ba mu fees dell remplir contrat am ci mikaayam sax nangu fa woon a génn génn yu bëri bu génnee ci mikaayam ci géew bi la jëm sangu ay biteelam ñëwaat toog Papa Sow tamit noonu mais ñi yàq làmb ji du ñu ay mbër ay tëggkatu sabar ñoo yàq làmb ji te Siteu bu xamoon ni tëggkatu sabar yi dañuy yàq làmb ji du leen fa indi Papa Sow tamit bu xamoon ni bu ñu bëree ba pare nii lay demee waat du kii te moom li mu def Papa Sow la war a def parce que bu doon man la kenn man mënu ma faa teree jaar man du ma jël sama xaalis fay sama xaalis sëriñ ay xaalis bu bari mu wax ma ni ma demal saraxe lii ay tëggkatu sabar di ma ko teree saraxeloo du ma ko def bu ma yebalee sama nit dem munul dem def ko man maay dem defal ko sam bopp parce que bis bi man maa xam fi ma toll ak li ma jaral waaw. préparation bi xaj waaj bi nu mu mais jël sa lépp jël sa alal jël sa lépp def ko ci mais chaque jour ñun ñoo waa xam nga rafetul quoi CNG bi na nañu xoolaat bu baax li ñuy def nañu kase verdict bi jàpp ki ki nga xam ne moo dóor Papa saw sabar bi yoon def ci liggéeyam ñu jël ñaari mbër yi seen xaalis jox leen ko ku bëggaat combat bi nga tëgg ko loolu moom mooy yoon dëgg neexul Sénégal nañ waxante dëgg te dee munoo gërëm nit ki tey gërëm Papa saw ak si te tey suba nga ñëw taxaw naan ay combat laa ak ñoom loolu du dëgg du yoon CNG bi bu ñu defee loolu tamit defuñu yoon waaw. wax ji am na solo Ondou lay tàggoo. waaw li may tàggoo mooy comme d'habitude masawu Papa Sow wu sita di ñaanal ñëpp di ñaanal ak lu làmb yëpp di leen wax ñun les jeunes lutteurs ñu ngi seen ginnaaw te am na lu ñuy waajal pour loolu parce que ñu ngi waajal ay conférence de presse xam naa ni mobile dina woo Kona Kona mooy porte parole bi ñoom Agogo xam nga Gako 2 xam nga gars yi nekk ci bureau bi yëpp ay daa xam gaa gars yi nekk ci Mouri Cargo gars yi nekk ci bureau bi yëpp daal. dinañ leen di woo toog ñu toog réunion après ñu doog a xamaat lan lañ ci gën a jaaxam gën a xam waaw